bon dialogue bi moom man je pense que ñëpp ci waroon a dem bu fekkee ne yow Sénégal rek moo la soxal euh, président de la République c'est la première institution de ce pays su wootee lu mel nii euh, surtout ñuy traverser ay moments yu difficile je pense que koo xam ne Sénégal moom mooy vraiment say sa préocu mooy sa préoccupation première da nga war dem wuyu ji d'abord nga déglu xool bu fekkee ne arrange la après nga doog a génn jox sa joxe sa opinion seulement bon ce qui se passe dans ce pays il faut que les gens euh, comprennent que nous traversons une période extrêmement difficile les gens ne le disent pas mais je pense que ah wolof bon d'accord nit ñi duñ ko wax mais am na si ñoo xam ne xam nañ actuellement li xew ci réew li xew c'est un niveau boo xam ne supérieur loo xam ne sénégalais sax soupçonné wuñ ko yàggul dara il y deux jours ou trois vous avez reçu le ministre Birame Faye muy wax ni je pense que Maïmouna Ndour moo ko recevoir mu naan li xew nii ak politique bi nga xam ne moom la réew mi ni jànkuwutoon moom mosu ko gis moi je trouve que c'est très normal. parce que nous avons affaire à des fondamentalistes ce que je dis là c'est une chose très sérieuse il faut que les gens prennent en compte que nous sommes confrontés à une nouvelle lutte cette nouvelle forme de politique bi nga xam ne ñii fi nekk muy waa Pastef li ñu fi bëgg a instauré sénégalais yu bëri comprendre ñu ko. yow comprendre nga ko. Euh, bien sûr. Euh, li xew mooy euh, dafa am ay bon au premier siècle de l'islam jamonoy Omeyyade dafa amoon ay courants yoo xam ne ñoom ñoo doon affrontement entre trois courants moo amoon les bourgites les khadrites ak les mourjites affrontement bi c'était pour la lutte pour le pouvoir pour la conquête du pouvoir Bourgidi ñoom mooy ñi bu ngeen fàttalikoo le maître nga benn Demba Touré doon wax bi mu fi indi problème mu Daxawa di ko poser dans le pays les gens ont cru comprendre que moom benn niveau rek lay waxe mais ñi nga xam ne ils sont au fait de la théologie te ñu xam li xew ci réew mi li xam li xew ci àdduna bi li nga xam ne moom moo yàq ay réew yu bëri ñoom dinañ comprendre. que moom li muy wax waxewul niveau boobu mais beneen niveau supérieur lay waxee parce que jamono yi au premier siècle de l'islam combat yi dañoo taroon trop Omeyyade nag jamono Omeyyade c'était une dynastie arabe qui a régné entre six cent cinquante et sept cent euh, ci jamono yonent bi après juste bon ci ci ci ci à la à comment dire après l'apparition de l'islam bi ñuy xeex ci li de pouvoir yi dafa amoon les quadrites les quadrites moom mooy les fondamentalistes ñoom pour ñoom libre pensée lañ doon prôné te dañoo gëmoon nii mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy prôné daax wax dañoo gëmoon nii même nga utiliser violence pour dàq fi bourgeoisie yi tam jar na ko parce que l'islam ngay xeexal te boo ci dee àjjana nga jëm ñi ñu daan dénoncé mooy première classe bi ma lay wax ñooñu nga ñoom la ñu confondre lañ doon jëlee lañ doon la ñu confondre woon ak ñi nga xam ne dañ doon jël nit di ko teg place yàlla lan nga ñu bëgg a li mu leen bëgg expliqué mhm. mooy actuellement li xew nii ñii politique bi ñu bëgg a ñoom ay démocrate lañ du ñu ay démocrate. ay lan lañu. ay te fi ñu jëmee réew mi ci extrémisme religieux la ñu jëm.